mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah dinaa yàlla julli ci bi tey ñu ngi dellu si ci suñu émission bi mu tuddee ko wala borom tudd am dëgg tey ñu dalal ci sëriñ Bassirou Ndiaye mu nekk fii di yëngu ci wàllu fajum cosaan nekk fii ci Touba 28 tey moom lan moo doon suñu gàttale ci suñu émission bi ñu fas yéene ànd ak moom dalal la fas yéene jox ko kàddu bu nuyoo bu ko defee ñu présenté wax ne moom si ci lan lay yëngu ak auzu billaahi min seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ñu sant bu baax nuyoo ba ñu di ci jël sëñ Muntaxa Basiiru Mbakke di ci tegaat sëñ Moussa Nawel di ci tegaat sëriñ Moodu Abdoulahi Mbakke mooy tamab sëriñ ñu ngi ko ci santaat bu baax di ko ci gërëm di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko ko ak képp ku ko yaakaar ci barke sëriñ Tuubaa ma layaata aw foog no sereer koy mexe ma nuun fokkataanu no fa layane kan bogote ndax nuno jegun o sere ref me laya kon koy fat ndoko kam bon ando ye nu jege te kene papanga koy um karna pulane ke pulo mi wi salamu aleykum wa mi salmini pulo mi salmi jol fof yimɓe fof mi noddi mi yimɓe fof yo ar si allah jaɓi simi haali yo nana sinani waɗ nder nofru nana ha moƴƴa si allah jaaɓi gonga tan wonɗo inchallah waaw comme ni ma ko doon waxee rek eh, auzu billahi min ci seytaane ndax liggéey moo diis tondoog dafa am doole yàlla nu ci yàlla musal yàlla nu yàlla dimbale dañu boole ak nit ñi ndax ñu mën a jariñu ci nit ñi ndax nit ci biir nit la mën a jariñu kon yàlla nu yàlla boole nit ñu nite ndax liggéey la ca gën mooy loolu waaye daal nu ngi santaat yàlla bu baax comme ni ma ko doon waxee ci biir liggéey bi ndax liggéey bi doon na loo xam ne du benn at du ñaari at maa ngi ci yàgg naa ci te ku ko dégg xam ne du ma gan ci ñoom fii ba Amérique fii ba France fii ba Italie tout ñëpp a ngi jokkoog ñun kon mel na ne bu ci njariñ amutoon dofuñu xanaa ñaari yoon. sëñ Bass euh, ñu gis ne feebar yi bari moom moom naa ci wax ay mbiram. ndax Sénégal gii kat moo koy bëgg a tas. ak beneen réew fii ba bitim réew. moo fay dox. waaw ndax bari na ñoo xam ne bëgg nañ koo faj foofa mook tànk yi metti te mënta sotti. ba ñoom foofa la ñu woote téléphone nu yónnee leen bagage yu ko faafara ci kàttanu yàlla net bi ñoom buñ ko seetaanee danañ xam ne lii ma wax dëgg rek la site ci boppam mooy xasanloo nit di wokkatuloo muy wokkatu fu mu toll muy jaxase am xelam ci lu bëree bari di ko tayaloo ci lu bëree bari day dem ba àdduna sax moom dootu ko bëgg loolu ci ndoxum siti ci la bokk li ko indi ci doomu aadama day xasanloo yaram wi di yëy di ruux di jam dégg nga ko kon siti ni muy def xaw naa di ci doomu aadama tànk yu yi nag mooy ruux bi mooy yëy mooy jam siti ak tànk yu métti dañoo xaw a déggoo ndax ñaari tàngoor ñooy ànd ci nit te ñaari yëpp da ngay yaakaar ne lii la te fekk na bii rek la kon ndoxu siti ak émérite ak ngelaw dañoo xaw a bokk waaw ndax foofu it maa ngi tooñ jigéen ñi sax naan leen jigéen ju manque kàttan ba wëlbati ko ni waat góor gu manqué kattan jigéen ju manqué kattan nag soo ko waxee nit ñi danañ ko werante waaye boo nee góor gu manqué kattan nag kenn du ko werante loolu moom leer na waaye nag euh, toujours wolof dañuy wax ne ku bañ ku weddi sa wax wax man séeréer bi ma ne ah kay dinaa wax de ndax li may wax soo ko mënta dindi rek sama wax taxaw loolu mooy àdduna ndax luñ dul weddi amut waaye fexeel ba ku ko bëgg a dindi doo am loo fa teg kon la fa nekkoon dañuy ñëwaat taxaw dégg nga ko ma dina xamal ne ndoxum siti moomu nag mooy xasanloo nit ñi ngay wokkatu sa baaraam ya yooyu tànk ya day weex di xeeñ teg ca lépp ci siti la bokk kooku siti mooy def lu mel noonu mooy dem ba mu gi nga wokk sa loxo mu dog soo ko seetloo day def heure heure boobu nag di bu wëree day ñuul kuk sooy wokkutu bu daggee du naaj ndox lay génnee. loolu mooy siti ñu wax la ne boo bëggee faj siti dëgg-dëgg da ngay jox nit ka garab ka mu naan ko mu génnee ko buy dem ca wana wa muy génn ci wanoo ba muy xool gis jàngoro ci xam ne lii mooy sama jàngoro loolu mooy siti soo koy faj mook hémorroïde nag danoo àndaat bi nu àndee ñoom siti ak hémorroïde bi ñu àndee ndax dañooy dem ba tollu foo xam ne sa biir bi yuuxoo ngay seere di tayel bopp bi ubbu ràpp adduna nga doyal ko di xalaat ci li ëpp alaxira kooku sitee koy def ak hémorroïde soo demee ba yegg foofa nag yaa ngi ak sitee ak hémorroïde bi ci biir bu fekkee boobu jàll na nag mooy indi comme tuñ mu newi maat bucceeku ci suufu borom comme ni fas deme duus indiwaat di génnewaat ay matières yoo xam ne ci suufu borom comme comme lu mel ni deret ak lu mel ni bucceeku yooyu yëpp da koy indi day safit comme weenu béy ñaar koy def comme comme weenu béy da koy def suufu borom kooku ndoxu siti bi moo ko indi ci doomu aadama su àndeek émérite moom mooy indi yooyu yëpp kon fu ñu ko fekkee rek ci kàttanu suñ borom suñ borom war na ko saafara ci kàttanu yàlla lañ wax. incha allah ñu ngi ciy defi tegtal bu baax a baax te nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp ci nañ may waxee émiré boobu lay wax nit ñi ne leen toujours ma ne bari bokkut ndax soo xamante ne bii suñ borom def na nga dem boo bañ di ko jàppoo man boobu sax moom a gënal bu ñuy jàppoo borom boobu sax man moo ma gënal ndax tawat bu ñuy naatam ne borom bu mënta jóg. mën a waaxu dem ñëw rek leer na kon tawaat boobu nu mu gën a garaawee rek moo ñu gënal fu ñu ko fekk rek yàlla saafara ko ci kàttun suñu borom loolu moom yàlla dogal nag ko wax dëgg yàlla ñu ci santaat yàlla nag bu baax a baax ah, ndax dañuy wax nit ñi ne ñaare ñaan moom yal na ci yàlla ànd rek waaye bu ca loxoom génnee rek nga xam ne mënoo dara kon loolu mooy ndaxu siti ak émérite ci ni ma ko xamee mooy indee noonu nii waaye nag fu ko fekk rek rafet na ci njort lool ah, tuuti. damaa wax ne manque kàttan ci góor euh, góor yëpp maase nañ xam ne dëgg la kon jigéen ñi nu ngi naa table ndax dëgg la am ma indi ko. jigéen ji nga xam ne xelam day jaxasoo fu mu toll day dal sax ku am siti xel muy jaxasoo foo toll doo bëgg dara ci àdduna ci li ëpp àllaaxira ngay xalaat sa bopp bi ëpp ràpp sa wërsëg tëju loo yaakaar mu tas ci li ëpp sitee koy joxe ci ni ma ko xamee. ma ne la fu ñu ko fekk nag ci kàttan suñu borom suñ boroom saafara ko bu jant bi soo muy làqatu ji di daw di làqatu ji di këram kooka kay neexatul borom boo déggee ñu naan manqué kàttanu jigéen mooy yëg-yëg bi mu war a am bu neex ba lu dul am su boobaa nag loolu mooy manqué kàttan ci jigéen. <coughs> Euh, euh, cosaan ndax <coughs> waaw cosaan moom ba tey dëgg la ndax. daanaka cosaan boo gisee mënante am rek ci cosaan la hmm. waaye bu cosaan amut mënante amut moo tax loo ci gis rek bari bokkut la ndax ndax waa ñun dëgg-dëgg xam-xam fi ko war a jaayee sax mënee ko faa jaayee ndax xam-xam dëgg-dëgg sëñ bi mu ngi fii ci bopp la nekk hmm. ndax mën naa dem place boo xam ne tey boo xoolee ci biir bi laay da ngay nga naan wér nga la xool ndax lu ne da ko gis. Mm-hmm. ba da ngay tiit. Mm-hmm. te laa xam-xam ne ku ci xool. Mm-hmm. xam-xam fi kenn du ko gis. moo tax may wax nit ñi ne leen ku ko werante kaa euh, ba àdduna yi baax. soo ñëwaan ci séeréer. ne ko lii laa bëgg def naa mënuma ko diwa ko man. saa yoo demee ca diw moomee loola sotti. nga ne xam-xam na waaye déedéet. yàgga a fekke la. ak yàgg a gis mu koy def muy leer loola moo waral ñu miin ko ca ñaanu cosaan daa ko ak li nga jóg dem jàng ko rek nit ñëpp tëggandoo rek nga ñëw kapp ci. dañ ko fekk ca sunu maam ya ñi ma xam moom dama ko doon fu ma fekk wopp tam nit jaaxle dëgg-dëgg su ma wéetee moom rek defal ko la ma koy defal daw am na kilifa gu ma waxoon ne Basiiru ma ne Mbàkke mun ma bul ñaanati ma ne ko lu tax mu ne ma sa bopp bi àttanagu ko bul ñaan ndax am na ko am fukki at wopp ko ma ñaanal ko suñu ba dag kàttanal bi leexi mu wér waaye bi ma ba ca biir may liggéeyaat bu mu yàgg ba mu yëg ko la ma waxaan mooy li ngay liggéey baax na ndax jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla ndax dégg yàlla ci biir jaami yàlla yi. mel ni siti mel ni toppam eh, bi génn ak bi ci biir. loolu moom tojal naa la ko. waaw lakk-lakk itam damaa wax ne àdduna bépp moom su fekkonte ne amoon nañ war a mot ñaari junniy nit yoo xam ne dañ koo tek ne dañ ko war a faj man da ñett nit doo nga laa jël docteur yi ma jox leen ko ñaari junni nit laa la wax de te boo nee bi léegi yàlla bind ci julit ci waatu julit boo nee bi léegi yàlla bind waaye nangu naa ñaari junni ñu teg leen nan jox docteur yi ñaar noo leen di jëkk a wérle bu ci yàlla àndee matériel bii yëmut ak dara waaw nangu nañ ci lakk moom ndax fu ñu ko fekk suñu borom saafara ko loolu moo tax lakk moom dama amul yéene ñëpp xam ne rek am na fu ñu ko mëne ndax day yàqu yaram nga baal ma dañ koy gànkloo day def lépp te fu ñu ko fekk mu a keroog ci kàttan suñu borom lakk ñor ñor fu ñu ko fekk keroog mu jeex lu ñëw sax ñaari yoon parce que jigéen ñi tuddoon naa ko nga xam dañuy toll ci seen bakkan ba tey itam wax dëgg yàlla Touba 28 gi moom yakaar naa ñëpp miin nañ ko waaye li ma wax rek tournal boobu ngay tourné wut ci sama kër laa ci 28 bi jël mbitu yoonu bitigu américain njóobentaay boobu nañ ko moytu ndax am na ñoo xam ne dañ lay gàttandu ne la am nañ fas gi. tudd sama fas may wax toujours ne leen fekk duggoo ca biir palaas ba. laajte ña fa nekk état ko il faut nga yéeg ca kaw waaye fépp fuñ na foroot ci suuf dañ naa foroot waaye leerul kon damaa bëgg lu fasu Cheikh Bassirou Ndiaye xéewal doonu ko sama fas toujours dama koy ba ci kër waaye kenn du ko romb ci mbedd ñu jox la ko téeréet mbedd mu ko nit mën a jëlee rek du man nangu naa nag nit ñi sàggan seen càgganteeg bopp ak ëppal seen ëppalug bopp waaye nag lu leen ca fekki nañ xam ne du sama sartement man mënuma ko waaw waaye daal sama yëf moom ci kër nga koy fekk mbaa nga taxaw ma taxaw jox la fas yi damay wax nit ñi ne leen takk mucc sax la ko Lamp Fall di wax takk mucc sëriñ géen noonu lañ koy waxee mu ne takk mucc mooy gi nga xam ne jigéen bu ëmbee fi muy ëmbee ba fi muy amee doom du la wax lu koy metti waaw jigéen ji nga xam ne daa ëmb takk ko. benn fan rek soo ko yëgee takkal waaye nag ba ba ngay am doom doo sonal ci kenn lu lay métti da am cawarte am jàmm doo sonn ba am doom duñ la wax nag doo dem hôpital ndax jigéen ñi dañoo texit te am na loo xam docteur a ko xam analyse yaag yooyu yóbbul ñu analyse la. waaye ba la dara méttiwul nag xam nga ne dara méttiwul loolu moom leer booy am doom it kenn du la opéré li bala ngaa xam njàmbaaru fas gi dëgg-dëgg nga bàyyi nit ba dara desul dul xotti biiram nga ñëw takk fas gi ci kàttanu yàlla dana am léegi léegi tu jaaxal la sëñ foofu it ba tey dafa am lu ma daan yor ci sama loxo te naa ne bëri bokkut hmm. lii tax ma ne bari bokkut loolu ci la bokk li tax ma ne bari bokkut xam-xam fii la nekk loolu ci la bokk. waaye bokkut fi nga xam ne dañoo toog ñun yëpp di ñaan ñi faju toog ñu leen di ñaan laa la wax. nit wax a dindil sa bopp xanaa ñëw fa sa kër ga nee naa leen bu doon yoon defoon na comme ni ma ko waxee woon man dafa gën a yomb. ndax boo jëloon benn policier nga tappal ko kenn mu ànd ak moom kee nga wul policier tappal ko ko ngeen ànd rek mu mu surveiller lañ semaine day daal di leer ndax ñëpp koy wax muy dégg loo xam ne du doon leneen. waaw boo ba tey rek xam nga àdduna lañ ne. Ah, nit ñi. waaw foofu lan gën a rawante. waaw kay voilà waaw. waaye waaye loolu yi ba tey dafa am lu fi xew. dépasse moo fi dafa dama leen wax ne. dépasse ñu bari dañuy wut dépasse. Mm-hmm. waaye bu du wut dépasse bu doon dañoo jël baru fetal joxoñ la ne la ki ngay faj bu wérul nga dee ñu bari bakku. ci kàttanu yàlla bu la nee bu surtout nga dee nga seet. ci kàttanu yàlla de am nañ ci ñaan mm-hmm. ndigg luy metti tànk yu metti mbagg yu metti yaxu gannaaw ba di metti di yëy di ruux di jam tey gën a bañ guddi fu ñu ko fekk suñu borom def mu saafara ah, bët yu bët damaa wax ne mënuma ko waaye garab ya may joxe nee nañ ma baax na ca waaw bët damaa wax ne mënuma ko waaye nee nañ ma garab ya may joxe baax na ca kon mel na ni am na fa waaye lu ma ci dogu ndax mosuma koo ñaan asma fu ñu <coughs> ko fekk mu saafara wu ci kàttanu yàlla dégg nga ko tànk yooyu metti di yëy di ruux li jam loolu la ñuy wax atik toog ñun séréer moom la ñuy wax ngelaw boo ko bëggee indi ci wolof ndax mu leer ngelaw lay doon bari na ñuy ñaan nag waaye man boobu moom yombut yàllaa ko dogal waaye nag fu ñu ko fekk rek ñu ngi ci santaat yàlla bari na ñoo xam ne sax noonu lañ dootuma fajoo ci fenn ma ne déedéet kuy bëgg a dee jóg waa am na am na yu mamoon am na yu ma mën de waaw xam nga rab moom day am yoo xam ne da nga koy mën am na yoo xam ne moom da nga naan mënoo ko ndax ki nga xam ne day jékki-jékki ne ka nay xëm kooku moom fu ñu ko fekk mu saafara ci kàtt yi. ci li ma gën a xam nag jigéen ñi daal miin naa ne moom maa ngi leen ci traité ci wàllu doom waaye góor yi moom traité gu ma leen ci wàllu doom góor ñi moom kattan bi mu dëgër laa leen di topp tool waaye jigéen ñi nag lañuy ñuy fexeel ñu am doom loolu moom fu ñu ko fekk rek ci li ëpp suñu borom def na maa am naa ci gétt xar ba daanaka tabaski jëndatuma ko ndax ca laa koy am. Euh, yow euh, ko la Dakar a ki dëkk Kees di dégg émission bi bu la fa bëggoon a xaar ban bis la la fay xaar ki nekk Touba ki nekk Ndakaaru ba ci Kaolack noonu. altine rek. altine moom saa yoo ñëwee Thiès fekk ma fa. waaw altine soo xëyee ci suba ga ngay ñëw bu nu añee ba noppi nag damay dem. waaye rek altine moom ku xëy ñëw incha allah danañ jàkkaarloo. waaw. dana ma fa fekk incha allah waaye bu ko weesoo nag daa am ñu may xaar dakaar moo tax. bu ma demee Dakar am fa altine ca ngoon. ngoonu altine talaata àllarba ma fanaani alxamis ma dem ma dem àllarba ma fanaani Mbuur poste Thiaroye hôtel Sarli waaw poste Thiaroye bi ci hôtel Sarli bi rek. Mbuur. ñu ngi nekk jàkkay Seex Sàmb waaw jàkkay Cheikh Samb boo laajtee école 3 rek boo laajtee ja école rek laajte jàkkay Cheikh Samb ñu indi la fa. foofu la ñuy nekk. foofu noonu àll ba ca ngoon laa fay ñëw. waaw eh, Kaolack alxames laa dem. yenn lu fa. ba ca ngoon nga ma jóge fa. ñëw ñëw ñëw ñëw Touba. Touba ma nekk fi alxames ci ngoon. ajjuma gaawu dimanche alterné ma demaat. incha allah. waaw ba tey dañ ciy def ñaan. képp ku ku bëgg yokkute. am na dañoo wax ne liy xëcc. ak luy bëmax moo fi nekk. ba tey am na mën naa nekk jigéen du bëgg jëkkër am na incha allah ñu ngi ci def tegtal waaw. ba tey loolu it am na de incha allah ci kàttanu yàlla waaw asma it lépp am na waaw. waaw xanaa di santaat ñin fekk si. Hmm. di la ci jiital. Hmm. ndax yaa nu fi indi. Hmm. di ñaan suñu borom defal leen ay tawféex yu kawe seen i njort. ba liñ bëgg it yàlla defal na ko. ci kàttanu suñu borom. di ñaan xéewal yu gën a kawe yàlla ñu ko yàlla defal. ci barkeb Sëriñ Tuubaa. kon kii mooy sëñ Bassirou euh, Ndiaye xéewal ñu dalal ko tey ci sunu émission bi ku war mburu tudd ab dëkk mu nekk fii ci Touba 28 waaye nag réew ku ko bëgg a jot mën nga koo jot ndax téléphone yi nga ko war a jotee mi ngi noonu heure yi muy nekk ci dëkk yi tamit wax na leen ku ko bëgg jot moom ubbi na ay portam dégg ngeen ko li mu waxe tamit fas yooyu nga xam ne da koy joxe am na ci ñoo xam dañuy tuddoo ñoo koy joxe waaye loolu du fasu Bassirou Ndiaye ku ko soxla da nga dem ba ca kaw ñu jox la ko bu dee fa mu nekk ca Dakar rek mandarga koy joxe yépp nga ko nga bëgg lu leer na nga woote ci numéro bii wala ngaa jokkoo moom ba nga xam ne boo liggéey di ci am lu leer mën ngaa woote 76 391 74 63 loolu mooy numéro téléphone ñuy sant Serigne Bassirou Ndiaye di ko wax li mu nu ñaanal ñu ñaanalaat ko yàlla ko yàlla defal xéwal ci liggéey bi ba li mu ci sàkku di ci saafara nit ñi tamit jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yàlla defal ko ci taw tawfiq